loo indi tey. Adja mi ngi noonu tey li ñu indi euh, balaa ñu ci indi xam naa ni ma wax ni bii passé jeudi la defe naa ni thème bi ñu waroon traité te ñu def ko ci xale jigéen yooyu ñu doon wax après ñu bëri woon nañ ma naan ma envoyé ma vidéo yi xam nga Sénégal yi dañu dañ gumpa waaw mais xam nga tey man su ma jotee ay vidéo xale jigéen léegi ma ne ñi ay victime la su ma ko envoyé nit rek daf mel ni kon maa ngi maa ngi jàpp ci euh, li ma doon tere naan bu mu yaatu mm-hmm. euh, yi nag ñaaw na lool mais li may faral di wax mooy dafa yaa ko waxoon sax muy ku yàlla suturaal ba nga nekk ci yenn yi jërul film wax dëgg yàlla ay xale yu tuuti yoo xam ni wax dëgg yàlla euh, fettaguñ ci nen mën a def yenn yi li seen ndey yi xamut sax ñu xam ko wax dëgg yàlla lu ñaaw la en tout cas sutura daal dafa dafa kii téléphone portable daal du pour loolu woote wuy la mhm. ku yàlla nag suturaal ba ngay def lu bon te kenn jàpp la mhm. ngalabul filmé sa bopp waaw ngalabul filmé en cas ñaaw na trop mais nag yàlla baax na yàlla na yàlla wëlbati ñu ci non non non partagé wu ma ko non non partagé wu ma su ma ko joxee nit rek ci cadre liggéey la ci liggéey bi la des fois ma jot dara yónnee saa ci mm-hmm. cadre liggéey bi la mm-hmm. mais du ma partagé sa daan ma jox waaye joxatoo ma yàgg na ah, eggali ci cadre waaw yokkat victime ne da nga génn léegi génnu ma ci yaa ma ci génne moo ma ci génne dugal la ci kii dafa am problème nga ne dañ cee génn yaa ci dugg yow <laughs> tey li ñuy Adja <laughs> ak góor la goo xam ne man mii bu ma Assane géey woowul woon Assane Gueye journaliste Walfadjri Assane xam nga ku yaru ko Assane nit ku baax la ku yaru hmm? Assane dafa yaru Assane Gueye dafa yaru waa léegi ma non non Assane Gueye wal Assane Gueye nii bu wal fajiri xale bu yara boobu boora ceeg nekk intellectuel ba pare nekk donga daara ah, macha allah waaw waaw Assane Assane dafa yaru mm. Assane su ma envoyé woon vidéo bi ni Seydina Omar moo ko jëli woon man damaa bokkoon ci Sénégal yi doon naan góor gi wérul mooy góor gu ngay doon gis muy yuuxu ci internet bi ndek yow émission Seydina Omar bi mu doon def jàkkaarloog askan wi. Ah. ci lañ fa vidéo euh, benn extrait avant vidéo bi di génn maanaam émission bi di daw ci mardi bi. Mm-hmm. Mm-hmm. commencé nañ partagé mbir léegi dama bëgg ñu dem xoolee extrait bu ndaw bi nga xam ne moo wër ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. après di ñëw daal di leen di jox as lëf ci li nga xam ne moom lañ jëlee foofu la ci wal fajiri première vidéo bi moo du ñu dellu si waat. nekk xam doxal guddi sax tëdduma daal waaye dëkk bii. sonn li mooy première vidéo bi nga xam ne Sénégal yi bari gis nañ ko ci réseaux sociaux yi bay wax ni góor gi xanaa wérul wala bokk ku mel ni naka lañ ko mën a joxe micro ci ab meeting wala lu lu mu ci mën a doon ndekk yoo góor gi ci la mu nekkoon lu ko ñor la doon wax bay fàttali fii mu jaar ci dëkk bi ak ana yu yàgg ba fii mu toll nii ñu dem xoole ji extrait bi nga xam ne ca wal fajiri techniciens yi ñoo ko vidéo ñu dellu si waat 1963 la breveté fi laa nekk ci ci dikk maabo gii diggante maabo Birkilaan diggante diggante maabo Ndofaan diggante maabo Ñooro diggante naa fa Kaffrine fu nekk xam naa du fa nekk mën naa doxal guddi sax tëdduma taal lumière waaye dëkk bii sonn nañ góor ñi sonn nañ jigéen ñi sonn nañ jubale waaye leen jubale ci ngir yàlla ngeen jubale waaye waaye Macky Sall maa la mag Macky maa la mag képp ku toog ci mbalaas bi maa la mag tey voilà mi ngi noonu kon di gërëm Seydina Omar Ba mi nga xam ne fu nekk lay dem fu sore sore ci àddina bi di euh, def ay émission foo xam ni dañoo soxla ay ndimbal Adja nag jàkkaarloog askan wi vidéo bi nag bi mu amee góor gi ndeke yoo dara jotu ko euh, temps de parole am dafay ñëw ñu jox ko mu wax ca biir loolu nag xam naa yuuxu gi mu doon yuuxu peut-être yuuxu joué la pour wane ni li may wax fii la ma toll maanaam du ko wéradi di ko xam ne itamit dafa tàggoog sagoom da doon nettali fi mu jaar depuis presque quarante ans yi passé passé ci liggéey ak leen état ma sa dig te mosu cee def dara loolu la doon nettali ba toll foofu di yuuxu ay yuuxoom kon mu nekk message boo xam ne président Sall keneen ko war a war na cee jël li nga xam ne moom mooy ay matuwaay ci yi dafa am ñoo xam ni fu sore ci àll bi muy Sonko mii muy Bougane muy Pape Djibril ku nekk ngi wër ci àll bi di nga dem ba dem foo xam da ngay jàpp ne lii amul ci Sénégal maanaam ci métit bu ñu dund mais ni dañuy gis ñaare bu ñu faloo xaw ma ndax seen maire yi ñoo leen di sàggane xaw ma message yi ñoo dootul jàll xaw ma lu muy demee noonu mais dañu leen di fàtte te barina ci nag ñoo xam ne tey bu ubbi woon sa lii ñu woo ni la ay la yéwén heure sàngam bërëb sàngam président Sall toog na ci garab gi toog na ci nixmaa gi toog na ci ëtt bii ñu waxtaane nangam mu ni bu buñ ca àggee dina nangam loolu nag Omar la ñu bëggoon waxtaane rek wane ni kon góor gi wéradiwul dara jotu ko maanaam lu nekkoon li ngeen naan euh, cri de cœur mhm. la doon def mhm. maanaam daal dafa am lu nekkoon ci xolam lu mu doon bëgg a yebbi ba mu jaarale ko ci ay yuuxu pour Sénégal yi peut-être man koo yërëm mhm. xam ne lu tax góor gi li mu def am solo mooy euh, jàkkaaroo askan yàgg na am waaw te mosuñu fa jëlee extrait teg ko fii déedéet kon góor gi li mu def am na solo ndax tax na message am jàll waaw tax na bàyyi xel émission bi benn bàyyi xel dëkk ba wan ni depuis quarante ans jàmbat yi mi ngi fa kilifa faju ko te boo gisee ni muy nettali nettali na jaar-jaar boo xam ne métti boo xam ne dund na ko dem na ba ne Macky Sall maa la mag maanaam jàmbat yooyu tey jii muy yuuxu yuuxoom googu ay xale la ko yuuxul maanaam doom ak i sëtam mhm. waaye moom bu doon ni intere kase mhm. wala bëgguñu dégg ko jaratu ko ndaxte âge bi mu am mhm. tey jii gëm naa ni liy neexat ci moom ci àddina barewul tey ji bu même bu fa teraanga amoon jàpp naa ni góor gi moo ci gën a tuutile kon yuuxul ndax góor gi moo doon yuuxu waaye ab askan la doon yuuxul mhm. comme nag danoo yàgg wax te kenn déggu waaw léegi ñu ne nanu yuuxu ba ñëpp dégg leen te mhm. yuuxu bi foofu la baaxee mooy mhm. yuuxu na ba tey ji àdduna bi yëpp jot ci kon yuuxu bi mu yuuxu am na solo beneen bi sopp mu ne nga ne kilifa yi ku ne ak fa muy teg tànkam ci réew mi loolu sax bokk na ci lu tax ñuy dog nemmeeku tuur yi am ni ñu koy dog kër bu waree am ñu ne du egg parce que am na ci foo xam ne ku fa egg bu doon ni ay jàmbur ñoo fa ne di nelaw boo fa eggee yee leen. te tey jii yow bu am na tur booy am yow foo dem rek da ngay siwal dëkk boobu ak la fa nekk di jàmbat parce que bu nee diw dem na fa diw day tax ñu bàyyi xel dëkk boobu te bari na ci loo xam ne tey jii ñu ngi koy tiitaloo ci Ndakaar waa kaw gi ñoom ñoo ko gën a soxla. damay fàttali Macky Sall avant mi falu boobu ñu ngi doog a dëkk Alaaji Paate mu taxali ko Abdoulaye Wade ñëw Alaaji Paate Kër Massar boobu Kër Massar naqadi na ndaxte bu dee ni fa nga jëm lii di saret moo la fay yóbbu wala leneen ak leneen ma romb benn ndaje maa ngi ne sama yaay ma ne ko Macky Sall laa romb fii sama yaay na ma Macky kon dina jël réew mi ci jamono boobu ma ne ko lu tax mu ne parce que lii ku réew jaralul dara rek doo ko def maanaam fi mu teg tànkam fii parce que boobu alaaj paate neexul dem sori na ci moment boobu noonu pour wala rek la mu leen jaral te boobu la fa gëj a teg tànk pour la ni rek moo mooy loolu àddina dafa xaw a doy tuuti léegi nag fii li may daanele mooy magie wu internet bi bi ñuy njëkk di commencé internet ñu def ñetti W yi da nga doon laaj lan la ñun la World Wide Web mooy la toile d'araignée mondiale maanaam internet moo mën lii tele dem na fa mais internet moo tax tey jii ñëpp jëf ci kàddu yu góor gi loolu tax des fois bu naan na nu yamale internet bi nan lii maanaam ku nëbb wala ku aj du bëgg ku teen tey jii internet njariñam mooy lii maanaam fépp fu loxo daawul egg bët di fa egg mu indiluñ yenn xibaar yi ba ñëpp jot ci looloo tax di félicité Seydina Omar mi fa demoon di félicité Walfadjri bu fa nekkuloon mu ñaaw macha allah jërëjëf Omar Mountakha Gueye kon su ka Omar wax na ko euh, premier jour bi ñu ko tourné la vidéo yi commencé circuler ndekk émission bi nga xam ne sax moom la Seydina Omar tourné dawagul woon kon pour war a doole internet noo gisee góor gi ak yooxu yi. dafa euh, lu mu bu fekkee lu mu def la réussir na. Hmm. atteindre na xolu nit ñi. Hmm. ndax man bi mu defee léegi dama ne ndeysaan. ndeysaan kon donc atteindre na ko ba pare di wax ni que euh, li ngay wax ni am na dëkk yoo xam ne ci fond la. Hmm. di nga fa dem da xam ne fii. dafay dafa parce que euh, sama sama boroom kë day liggéey ci. mbirum kii des fois dama am na boo xam ni. Mm-hmm. dama ànd ak moom muy dëkk boo xam dëkk bu sori la. Euh, boo demee da ngay defoon ni sax fii. Mm-hmm. dara amu fi lii amu fekk ay nit a nga fa ay kilifaa nga fa ñu baax a nga fa toog. Mm-hmm. te te kenn eggagu fa. donc te pourtant loolu war naa mën a ne mën naa war naa mën a ñàkk. muy président Macky euh, ki paa bi mag dafa dafa def dafa yuuxu. yuuxu bi mu yuuxu ni ko président. ni ko Macky maa la mag. loolu junj na lu bari. Mm-hmm. dafa junj loo xam ne lu bari la te lu metti la. tamit may wax tamit internet dañ bàyyi di dagg. di dagg dara extrait rek dagg. Mm-hmm. dagg dara dugal ko. ñuy joxe lépp daal ñan joxe lépp. bu ko defee bu nu daggul dañuy gis nga indi na fi problème ci imam bi voilà mais déedéet mais dagg tamit xam nga bu daggee dara comme daggoon nañ fi Ousmane Sonko ci lu mu wax ni ku dee sa yaay juraat te pourtant eggul foofu dana pourtant loolu du sax egg loolu duñ fa dem dee sax du ci am te pourtant loolu ñëwu loolu nit ñi dañ koy wax ba tey imaam bi tamit keroog bi mu waxee affaire mille francs yi pourtant egg na mhm. mais nan bàyyi di dagg mhm. di félicité nag ki nga xam ne rek moom moo di euh, Seydina Omar Ba yàgg na def liggéey mais dañuy wax ni que ku demul ba ci àll bi euh, kii mhm. doo xam am na ñoo xam ne ñu ngi seen àll toog ñoom la fa nekk ñëpp ñoom ñoo ko defal seen bopp du gouvernement d'accord te loolu gis naa ko te du gouvernement def dara mais wax dëgg yàlla ñu ngi félicité nag waa Walfadjri parce que mooy leeru jamono lu fi waaye def rek day day feeñ bu baax a baax a baax jaajëf suka euh, béti li ci xaw a metti nag ñaar yu mel nii bu amee ba am solo ba message bi jàll am na ñoo xam ne dañ naan ay politiciens ñoo ne seen ginnaaw waaw man am na sax fu ma gis ci kii commentaire yi dañ naan ah pas yu sonko yi la rek est-ce que <laughs> ca jàppoo yi loolu des fois dina rey ay idée nit ki def dara ba mu war a am euh, état lu mu ci def ñu diaboliser ko ba mu dem feneen waaw mais mais euh, liñ naan ay lan ay politiciens ay paawu Sonko yooyu noonu non non parce que jàkkaarloog askan wi moo fi njëkk Sonko. Mhm. en fait pas ci kii mais ci ci ci ci jëfin ci siiwi nag yëpp. Mhm. jàkkaarloog askan wi moo ko moo ko jiitu kon ñiy wax dañoo xamul rek. beneen bi euh, paa bi man man li mu def nii. Euh, dama ni dafa jàll parce que communication la. yuuxu gi waaw communication la. Mm, waaw parce que mën na am ne bu jàkkaarloog askan bi yàgg naa dem ñëpp di wax seeni i doléance ñëpp di wax seeni problème mais peut-être bi yuuxu paa bi mooy mooy mooy particularité bi Hmm? paa bi rek lañ partagé. mooy particularité bi. Mhm. moom la parce que xëy na bu yuuxul woon sax mën na passer inaperçu comme yeneen ñi ñu doon def. Mhm. donc communication la et jàll na. Mhm. beneen bi su kaa mi ngi wax ni internet nañ bàyyi di dagg su kaa bu buñ ci jëlee cof. Euh, euh, du dootul nekkati internet xam nga lu tax parce que internet munoo jël toute une émission. teg ko ci internet peut-être yow yow yaay gis extrait nga dem yow xool yi peut-être fu mu comme comme comme xam nga tey waaw euh, euh, d'accord cof am na yu muy yàq d'accord naa mais dama ni comme par exemple ki bëgg jaay mais journaux yi sax titre une une day mhm. jaay te une dañuy def def trois points de suspension donc ce qui veut que ni li ci li ñu war a wax yëpp mënuñu ko def boo junjee nag ki am xel wala dara dem xooli intégralité vidéo bi wala nangam ak nam loolu laay wax parce que mën na mën na attirer day attirer day mhm, jaay mhm. loolu loolu mooy internet mais daal paa bi man li mu def nii moom communication la te jàll na. macha allah. Mhm. set set am na solo. Ousmane Sène nga sesti. sesti keroog maa ngi koy dégg. ñu boole ak Sadio xarit bi ñu boole ak Sadio. alaaji góor gi de nee nañ bu yuuxul woon waaw. duñ ko xam duñ ko dégg. Mm-hmm. waaye ci ñetti fan yi daal góor gi def na tour ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. waaw ñu bari foogoon ne góor gi wérut nag ndeke wér na. waaw ñi foog ni wérut ñoom ñoom ñoo wéradi <laughs> parce que aay ah, bi man defe naa ni sax ku xam internet la. xam ni yëpp yi di doxee. paa bi xamul internet ah kañ moo tax mu defee nii mu defee parce que xam na ni dafa war a marqué def dara. waaw. xam nga parensaa yi paa loolu mooy sa problème maanaam yow xale bi da ngay def ne paa bi xamul dara ci internet boo deful ndànk ci tiktok ba lay yendu xam na lay xew exactement li ñuy challenge ak ah, yëpp xam na li dox xam na ko ah. donc moo tax gis nga ni mu ko joxee temps wax li muy wax joué ci li mu ci joué gars yi partagé ko léegi eh, gars yi mën na defe ne ñoo koy manipuler fekk moom moo leen di manipuler loolu lépp pareen saa yi tamit euh, dana am en tout cas message am jàll na xam nga dagg defe naa bon li sukaa di wax pareen saa yi béti mi ngi mel ni tey nga jël sa sens wax ma ma dagg ci dara pare saa yi nit dina dagg. Mhm. jublu ci intention. def la lu bon. Ah. Mhm. c'est defe naa bon angle boobu lay. Euh, lay wax quoi. Mhm. parce que pare saa yi nga gis nit ki loolu laa wax. Euh, daggul émission bi rek pour loolu mais da nga gis pare saa ku dagg émission c'est pour jaay émission bi. nga gis nag am na koo xam ne moom day fekk son li nga xam ne moom la wax fii mu ne ko tip dagg. pour jaxase kook àddina mhm. lool tamit kuma bari na ci li nga xam ni moom la ñuy wax euh, internet bi mhm. mhm. pa boobu kera paawu gént boobu bi mu fi waxee wax jooju ba gars yi jël ko am na lu mu fi waxut xamatuma lan la exact sa jabar waaw rahma la baraka la waaw xam nga loolu mu waxoon na nag ñu daal di koy jël euh, kii dañoo dindi baatu gént bi rek gént di dóor lañ dindi daal di bàyyi fa dóor sa jabar mhm. comprendre nga kon ki def loolu da nga gis ni daf ko def voilà daf ko def pour euh, yàq nit ki mhm. donc euh, yu mel noonu mooy li nga xamante ni bii moo bon mhm. te pareensaay nga gis koo xam ni non seulement du yem lekk ci dagg waxu jàmbur maanaam damay fekk waxu son yi bu mu wax fii ma jël ko ne tipp li mu wax ba noppi nag ne déglu leen son yi bu wax ci bon ji mu wax dëgg la ba noppi ah. démarré ko noonu ba noppi am na ñoo xam ne sax noonu lañuy ñuy def bu ko defee nga déglu ko mu wax nga ne seet leen lii. ku mhm. war a mën a wax wax ju ñaaw ji. Mhm. ah kii nag liñ ma doon wax ci moom yëpp dëgg la. loolu mooy yaa ngi bëgg a enfoncé nit. Mhm. gars yi dañoo garaaw. lu ne la ñuy def. Ah, <laughs> moo tax keroog bi ma déggee Assane wax benn wax ba ne ko rek Assane nag. Euh, intelligent nga tot nee na buy wax ak euh, nit par exemple yi day yàq bi da ciy dugal wax yu ñàkk fayda <laughs> nga xam boo ko partagé dootul baax. <laughs> waaw day yàq audio. wala li mu système la ba da koy nag su ma leen mën nga partage audio bi. dama ci dugal loo xam ne yow doo ko mën a partage. doo ko a partage dañ ci dugal ay waxam. <laughs> waaw ma ne ko boo tax ma ko léegi. xam nga kalaay ma ne ko mm. ah, boo li Assane wax bi mi ngi mel ni tey may wax ak. ma bëgg a wax ak sooy bu mhm. ne léegi bëgg naa wax sooy bu loo xam ne mën naa njort ni mën na ko partagé Omar te Omar laa bëgg a waxal ma ne ko sooy bu comme niñ ko waxee man ak yow rek <laughs> gis nga Omar ah nii ak nii wax léegi sooy bu du ko mën a partagé <laughs> parce que Omar ba mu ca dugal nee naa ko comme ni ma ko léegi loolu yàq audio la mhm. waaye asana ko xam daal moom audio bi yooyu war na ko partagé bu ko defee ba xool di mu koy <laughs> ni mu ñàkkee fay dagg yu bari moom pour nuyu la rek nuyu la mais am na bu dee jeexagul fekkee da xool da am envie dem xooli suite bi loolu du am na yooyu am na yoo xam sa yaay mu ne ndegam lool sax lu ci am xoolal wax bi loolu chaque jour yëpp dañ koy éliminer loolu dañ koy éliminer dañuy daggalee xoolal paa bu paa ak suma faloo màggal du fi am mm. waaw gàmm du fi am boobu tamit loolu dañ dagg muy dagg bu soof boo xam day yàq ah, nit non non yi dañoo ah, jeex na ah mënumaa mosaat dara. déedéet jeex na boo bëgg a mos. tàkk ah, dafa jeex tàkk. bu dee solution bi en tout cas elle a 9 minutes. Hmm? ah 9 minutes. aja kon loolu la ñuy indiwoon Adja ñu joxan dig daje ba alxamis. incha allah waaw d' accord incha allah li nga indi nii amatina solo son yi bu jóg.